chers internautes de Lou'Bess TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di kontaan seen fidélité bi ngeen di ànd ak ñun saa ne tey nag ñu ñun ñoo fii ak yéen seen euh, troisième numéro Actu Kan laata ma présenté li nga xamante ne ñoom laa àndal fii nii ñu ngi leen di ñaan ngeen di abonné di bës li nga xamante moom mooy la cloche de notification mais à chaque fois heure bu ñu dugalee rek vidéo yi ngeen gisal ko seen bopp di nuyuwaale aussi tamit waa Parcelles Assainies unité 11 fu ma moom mooy Cambérène donc ma maa ngi lay nuyu maa lay fay moom salaamaaleykum wa rahmatullah laay waxtaan ak maa ngi nuyu plateau bi yëpp donc euh, di nuyu Ahmadou ak techniciens yi caméraman ñi di nuyu képp ku seetaan la chaine leader Lou'Bess TV le chemin de l' information. le chemin de l' information maa ngi lay nuyu. moom maa ngi lay fay di nuyu aussi junior bu baax a baax comme ni mu ko waxee rek ak suñu techniciens yi di nuyu aussi suñu chef intone yi nga xam ne ne. ñoo ñuy suivre un peu partout dans le monde di leen jaajëfal bu baax di leen laaj nag aussi ñu ngi ñu ngi suivre kan bu baax ndax ñu ngi ci dans le bain quoi. waaw comme ni nga ko gisee rek li ma leen waxoon ci émission yi yàlla na leen passé lépp loolu la retraite ci li nga xamante moom mooy ci coupe d' bi mun ngeen ko xoolaat ci li nga xamante ne moom mooy ci Lou'Bess TV surtout nag ci émission bi nga xamante ne mooy Actu ñu amal li nga xamante ne mooy suñu troisième tey jii nii Ibrahima tey ñu war li nga xamante moom mooy équipe mag yi avant coupe d' afrique amoon na benn plateau bu ñu defa mën ñu gis ne heure yi nii dafa am équipe yu bëri yoo xamante ne fu ñu leen doon xaare dafa xaw a des lu bëri ñu commencé rek ci xamante moom mooy Nigéria mi doon moom mooy Guinée équatoriale en ce moment sax équipe Guinée jii nii yow nan nga gisee performance Nigéria ci première match bi. bon Nigéria ils ont fait euh, une une belle prestation ah vraiment football lañu match bu am solo. malheureusement li leen manqué woon mooy efficacité devant les buts dans le dernier geste seeni joueur malheureusement ay Osimhen ak yeneen ak yeneen donc dañu doon raté rek loolu mooy seen problème mais globalement ku seetaan match bi gis ne c'est une bonne équipe qui est venue pour euh, pour jouer pour aussi s'imposer ak euh, effectif bi ñu am des individualités très fortes. Je pense à Osimhen, je pense à euh, Lukman, le joueur de l'Atalanta Bergame. Donc, ay joueurs lañu am boo xoolee mais di leen manqué woon match bi passé mooy efficacité espérons que ko rattrapé si match yi di ñëw. ok dañ ko rattrapé si match biir ñëw Amadou ñu gis ne Nigéria football na première match moom équipe bi nga moom mooy Guinée-Bissau ñu bëri gis ne performance bu mu def ci biir terrain bi normalement résultat bi waroon na demee neneen tey jii nii yow nan nga gisee loolu noonu. xam nga kan lañu wax. te équipe yu nekk ku ci nekk danga nga football élimination pour mën sa yegg te bu ñu fàtte c' est onze onze certes expérience dina jouer aussi évolution euh, joueurs yi euh, au niveau international day jouer mais à chaque fois bu ñu duggee ci terrain bi rek euh, gars yi dañuy joxe à 100 pour cent kenn xalaatuloon que Nigéria dina mën na jàkkaarloo Guinée équatoriale te te du ko du ko duma duma duma bu gaaw ñëpp loolu lañ jàppoon parce Nigéria bu ñu wax ci ci champion d'Afrique yi la bokk ci équipe yi gën a mag la bokk équipe ëpp expérience la bokk mais bu ñu fàttee équipe yi léegi dañu am ay ay ay ay ay de ay jeunes ñuy ñëw coupe d'Afrique bëgg tey club yi nekk ci monde bi yëpp gis leen ñu mën a percer alors bu ñu ñëwee ñoom dañuy joxe à 100 pour cent kon moo tax match bi bu commencé prix ba 90 minutes benn équipe a jàpp ne yoo xam ne tey bu ñu ñëwee prix nañ la jéem a xool premier mi-temps duñu pour équipe bu mag bi dóor équipe bu ndaw bi day difficile li fay des mooy euh, parce que soo waxee performance euh, ñëppay entraîné performance du expérience bi nag dina joué que seen jeunes yi ñoom bokk même génération ay euh, bi du du du jouer de trop li joué rek mooy seen seen niveau international peut-être ak temps de jeu yi ñu doon am seen club yi peut-être moo leen permettre ñu a tenir match bi ba mat 90 minutes moo tax fu mu doon nii équipe bu ndaw pour man actuellement amatul quoi. dañuy dem rek ci équipe bu ndaw boobu noonu muy équipe bi xamante nag muy football en ce moment muy ki nga moom mooy Guinée équatoriale bi nga xamante moom mooy Guinée Bissau moom moom moo mën ne ki nga xamante ne mooy Guinée Bissau 4 buts à 1 tey jii nii nii nan nga ñu mën a wax ci équipe boobu noonu mu Guinée équatoriale waaw Guinée coto Guinée équatoriale ku ne gis na CAN bi passé ni mu defoon donc euh, ak Sénégal tase woon nañu sax mu métti woon trop sur les lions du Sénégal ba finalement ñoom ñoo mujj gagné donc équipe la boo xamante ni ils savent jouer au football comme Ahmadou di mu ko waxee léegi rek léegi y' a pas de petite équipe wala notion de favoritisme si feuille lay am. mais boo leen xasee ba dugg ci terrain bi d' autres réalités moo fay nekk que ça soit Guinée équatoriale Guinée Bissau Guinée Conakry c' est des équipes yi nga xamante ni dañoo am ay joueurs professionnels yu évolué dans des clubs européens donc ñooñu bu ñuy amagasiner seen expérience ak seen vécu bi ñu am foofu plus euh, li ñu mën comme talent maestria bi ñu am sur le terrain day métti que ça soit le Sénégal wala Côte d'Ivoire wala le Nigéria. équipe boo taseel xeeb ko tey jii day métti si donc Guinée équatoriale ils sont en de faire de belles choses depuis le début de cette compétition là ñu tenir en échec Nigéria actuellement ñu ngi joué ak Guinée Bissau di so door ko score pour le moment donc équipe la boo xamante ni mën nañ ko bàyyi xel en tout cas si compétition bi. waaw xam nga équipe construction la tey boo xoolee CAN bi passé euh, Guinée équatoriale li mu def nga xam ne aussi dañoo préparé seen bopp évolution la euh, daaw am fu ñu yem mais ren nañuy bu ñu ñëwee. fi ñu yemoon la ñuy bëgg continuer alors dañuy ñëw ñoom pour ils sont venus pour gagner te noonu noonu lay demee alors euh, gis nañ ko seen seen deuxième match bi tey ñoom ak euh, Guinée Bissau éliminé bon door nañ leen score 4-1 pour l' instant nga gis ne poule boobu aussi day day day xaw a jaxasoo. Mm. ndax fu mu doon nii euh, Côte d'Ivoire Nigéria la ci kanam. Mm. nga gis ni Nigéria comme li mu jógee ci ci ci ci match nul victoire moo ko arrangé kon moo Côte d'Ivoire day metti. Mm. Ah. moom Côte d'Ivoire day metti mm-hmm. alors lépp ça va se jouer ci match bi. Mm-hmm. nu muy demee tey bu Côte d'Ivoire génnee. Mm-hmm. ah ok am na ñaar équipe yoo xam ne pour l' instant mooy Guinée équatoriale ak Côte d'Ivoire ñoom ñooy nekk ci kaw bu match nul wala défaite amee côté bi de da koy reyante da koy reyante alors bu waa beneen match bi ça se jouera entre Côte d'Ivoire ak euh, Guinée équatoriale moo tax fu mu doon si deuxième journée bi bu ñu jógee ci première journée bi rek da ngay gis ni. certes am na tendance dina ñëw ci li nga xamante ne moom mooy ci deuxième journée boobu noonu ngay wax dañuy ñëw rek ci beneen kii bi comme que temps bi bëriwul ñu ñëw rek ci beneen match bi mooy Égypte ak Mozambique Égypte football ak ki nga xamante ne moom mooy Mozambique ñu jeexalee deux bi partout tey jii nii nii yow nan nga jàngate performance Égypte boobu noonu lan mooy problème bi pourquoi pas ñoom gañewuñ bon pourquoi pas ñoom ganewuñ loolu je je n'en sais wala jeune ne pourrais pas y répondre peut-être pour man Égypte euh, euh, vice champion de l'Afrique ñu nañu ay joueurs ñu nañu équipe aussi ñëw njëkk dugal peut-être ils ont manqué de chance li daal Nigéria par parfois moo leen xaw a daal muy manqué de réalisme devant devant les buts quoi dans le dernier geste donc euh, comme li ñuy wax léegi rek équipe bu ndaw amatul Mozambique yoo Tanzanie yoo ay équipe la ñu yoo xamante ni dañoo lakkale donc boo teelul jël les devants comme ni ko Maroc defee comme ni ko Sénégal defee day xaw a donc euh, Égypte c' est une bonne équipe ah ils n'ont pas encore dit le dernier mot quand vous avez Mohamed Salah quand vous avez Mohamed euh, Moustapha Mohamed dans votre équipe vous en tout cas aller très loin offensivement parlant joué nañ premier match ñu nul seen deuxième match dina métti je pense qu'ils feront tout pour euh, gagner pour qualifier aussi incha allah. boo kenn xaaru ko woon parce que comme Égypte mooy euh, vice champion du d' ñu bëri jàppoon nañu bu ñëwee aussi comme à titre de Sénégal aussi noonu lay def dina ñëw xam nga écraser Mozambique parce que tamit boo xoolee Mozambique déjà ñu bëri xamuñu seen joueur et tout ça comme ni ma ko waxee kat 11 11 la. 90 minutes booy yi ñu ngi évoluer même su fekkee ni seen dëkk lañ nekk wala dans des yoo xam ne kenn xamu leen mais ñu ngi te bu ñuy ñëw fii euh, dafa am lu indaale mooy benn arña boo xam il faut ma faire voir parce que dañuy bëgg au moins suñu jógee ci kan bi ñu mën leen jël ci ci club yu mag yi alors seen bakkan lañ ciy teg comme ni ko kii waxoon bakkanam la ciy teg loolu mooy actuellement loolu mooy problème équipe yu mag yi dañuy ñëw bon ci ci papier bi day gis ne équipe bu mag bi mooy favori mais bu ñu duggee ci biir terrain day mel keroog euh, Mozambique dafa dafa tenir tête ak euh, Égypte match bi météo na Égypte ko naroon ñàkk xoolee sax ñoom bu ñu gagné loolu moo nekk seen première victoire ci histoire Coupe d'Afrique. Coupe ah, te boo xoolee vingt ans parce que temps bi quatre-vingt-dix-sept minutes su ma juumul. lañ dugalee ma ne moom mooy bii. te te waxuñu seen seen dernier mois euh, Mozambique dañuy dañ seen deuxième journée bi dinañ xam fu ñu jëm parce que comme ni ma wax dafa am équipe yoo xam ne dafa am lu ñu indaale ci Coupe d'Afrique bi maanaam dañoo ñëw pour gagner ñëw pour bu dul dara sax dina am benn koo xam ne mi ngi mi ngi mi évoluer au niveau international dafa am expérience bu muy indaale ak benn apport bu muy indi ci équipe bi joueurs yi fa nekk dañuy ñëw gëm ni kii man fi mu yegg mën naa fa yegg alors su ma mag yi waaw day métti ci équipe mag yi rek comme li ma leen ko waxee rek léegi bon gis nañ li nga xamante mooy première journée bi jàll na équipe bi football nañ bu ñu xoolee ci première journée bi nag football nañ li xam mooy 12 matchs ci 27 bi lañ dugal foofu noonu mu am 7 victoire ak li nga xamante ne moom mooy 5 match ak 3 carton rouge loolu moo nekkoon li xamante ne mooy statistique yi am ci xamante ne moom mooy première deuxième journée bi après dinañ ñëwaat ci loolu noonu incha allah bu ñu paree ci Égypte ñu ñëw ci équipe bi xamante ne mooy Ghana Ghana moom xam naa ne moom moo moo moom moo surprendre ñëpp bu dee football équipe am moom mooy Cap Vert képp koo xamante kuy seetaan football xam nga Cap Vert te xam Cap Vert yàgg na bokk ak équipe bi xamante mooy Sénégal match de poule mu jàpp ki xamante moom mooy Ghana mu dóor ko 2 buts tey jii nii yow nan nga gisee défaite Ghana boobu. waaw une défaite amère hein une défaite que personne n'attendait mais c'est le football le football ce n'est pas une une logique amul logique déjà du 1 plus 1 égale 2 donc Ghana tey bu gagné bu perte contre Cap Vert c'est parce que ils n'ont pas été euh, trop bons peut-être ils ont fait une prestation moyenne. boo ku seetaan match bi di nga gis ne Cap Vert aussi euh, euh, ay ay ay ñoo fa nekk gis nañu seen prestation bu am solo donc Ghana aussi ak euh, l' absence de Mohamed Kudus daf leen xaw a jàpp André Ayew dugg deuxième mi-temps bref pour moi cet est une équipe qui se cherche ba tey c' est une équipe ki qui qui n'a pas de repère booy xool am nañ ay joueurs ñoom it mais ils peinent malheureusement à à mettre la bonne formule pour pouvoir gagner tey ji si tu perds contre cette de de Cap tu tu t'attends à de très grands matchs contre Égypte mi ngi ñëw tey si guddi incha allah donc ce sera très compliqué pour ñoom waa Ghana mais il faudra vraiment euh, hausser le niveau pour pouvoir vraiment se qualifier dans dans cette poule là. ok merci beaucoup Ibrahima léegi Amadou est-ce que yow yaakaar nga ne tey jii nii match bi nga xamante ne diggante Égypte ak Ghana est-ce que yaakaar nga ne Ghana mun na def surprise dóor ki nga moom mooy Égypte. mais dina metti parce que déjà ci ci ci ci nul Ghana jógee déjà gis nga ni ma la expliqué sànq euh, des équipes comme comme Cap Vert dañoo nekk en en en évolution dafa am fu ñu jógee bëgg fu ñu dem da ngay da ngay analyser lépp ci ci ci ci dernier CAN bi amoon nga gis aussi Cap Vert li mu fa def du coup ce sera très difficile pour équipe bu mag yi bu ñu bokk ak ñoom équipe. équipe ndaw dañuy du ñu équipe yu ndaw man jàppee ma leen équipe ndaw parce que tey euh, dem nañu CAN mos nañ ko am nañu expérience su CAN moom mooy lan dund nañ ko. alors pression du ñu am pression bi nga xam ne moom la ñu war xam tey ñu ne la da nga équipe bu mel ni Ghana à l'époque yow da doon jàpp Ghana bu ñoom Habib Pelé Ghana fii Ghana dafa am d'Afrique da nga doon am benn pression alors bu ñu la waxee ñoom nga war a daje sur le terrain yow booy dugg ci match bi yow tu te disais tey dinaa encaisser ay tonnes mais damay fexe damay minimiser euh, euh, bu yooyu mais tey boo boo jotee ñëw dem dem kan am ci benn expérience dund kan boo ñëwee dajeeg ñoom dootu amati pression parce que bu ñu fàtte ni euh, gan ki Cap Vert kan bi passé tamit def na def na def na kii euh, benn parcours bu bu extraordinaire kon leen bu ñëwee daje Gana euh, nii la match bi mënoon demee. léegi nag du fu mu doon Égypte Gana day metti pour boobu aussi sera très difficile parce que ñaari équipe yu mag dañ fa nekk mu Égypte ak Gana te ku nekk ci ñoom da bëgg a génn te équipe yi ñu ndaw ñaari équipe yi ñoo xam ne dañ jàpp équipe ndaw Mozambique ak Cap Vert duñ leen ci bàyyi. moo tax deuxième journée bi mooy dét moo nekk journée bu déterminant à partir d'aujourd'hui pour li nga xam ne moom mooy siitu kan bi. seen journée bi peut-être ñu xool ñu koy arrangé noonu ñiy qualifié qualifié ñi ñi nga xamante ne ñiy jël li nga xamante mooy troisième place yi ñu bokk mais deuxième journée bi daal euh, xam naa ne moom dina saf-saf euh, Ibrahima nan nga gisee équipe bi xamante ne moom mooy Cap Vert. Cap équipe bu mag la bon équipe bu ndaw amatul déjà. Euh, kii mi ngay wax léegi Ahmadou équipe boo xamante ni la am na habitude euh, année yi ñu mujj di qualifier rappelez-vous année bi passé ñoom ak Sénégal je pense tase nañu euh, ba choc boobu amoon sans an Sadio ak seen gardien bi donc Cap Vert boo xamante ne la aujourd'hui dañuy dañuy ñëw imposer seen bopp fii amul secret ah amul nga am ay star amul dara boo ñëwee si terrain bi daal ki la pour détermination ki la pour envie moom moo la si gën a génn quoi parce que Afrique la football africain ak football européen bokkul fii espace bi ñu lay may fële fii duñ la ko may fii nii la box box day am intensité day am ay ay ay euh, nu mu tuddati envie boo xam bi rek am benn club euh, la équipe boo euh, mi ngi mi ngi def forte expré impression ci coupe d'Afrique bi espérons que dinañu dem le plus loin possible naa ne moom comme ni ma waxee temps bi moom bëriwul léegi yow nan nga gisee star yi. ci première journée bi quoi seen performance. waaw bon star yi mun naa ne comme parfois xam nga da boot équipe bi alors équipe bu nekk am na star te li lii li per li li li li leen dimbali tey xool dañu xool match Sénégal Gambie bi ñu bëri ne Sadio Mané gisul gisul gisul man na non Sadio Mané ku mel ni Sadio Mané wala Mohamed bu nekk ci terrain dafa am benn jeu bu muy dégager dana permettre ñeneen ñi mën a am espace libre pour pour jouer. te loolu moo tax tey Sénégal am victoire bi tey ci kaw Gambie parce que on a d'autres joueurs comme Iliman Ndiaye tey Lamine Camara ñëw na gis ñu tamit euh, importance bu mu apporte ci équipe bi euh, euh, liberté bi mu am ci terrain bi parce que bu bu joueur yëpp toppee Sadio maane moom au moins dina am benn benn espace pour mun a pour mun a jouer Sénégal loolu moo ko may chance boo toppee nii kële génn loolu mooy équipe bu loolu mooy équipe bu mag. stars yi fu mu toll nii ñoom li ñu mën def mooy seen présence ci terrain bi dafay marqué au moins dina permettre yeneen joueurs yi ñu mën a am espace espace bu ñu jouer. ok Ibrahima stars yi nan nga leen nan leen gisee ci compétition bi première journée bi. waaw mais star sans entraînement wala sans talent doo dem ah. que vous soyez Sadio Mané Victor Osimhen Mohamed Salah Mahrez. boo nekkee star ñu reconnaître la reconnaître sa talent aussi nga dugg si terrain indi woo benn détermination wala benn savoir faire doo si génn fii Afrique la gars xamuñu ay star xamuñu ay vedette ah. duñ la may benn ni ñu ko waxee mais am na star yoo xamante dañoo jógee si ay si ay fête donc euh, de, pour l'instant peut-être seen xel ñëwagul pour cent mais avec au fil du temps Amadou mi ngi ree xam ne Sadio Mané laay waxal bien ah, sûr Sadio Mané bi ngeen ah, bi ngeen yëpp Sadio Mané ji <laughs> booy dañ ko yëpp dafa jóg dañ koy dañ. <laughs> non Sadio Mané c'est c'est un bon c'est un c'est un très grand joueur dama koy tooñ rek il va revenir c'est c'est comme ni ko Amadou waxee c'est c'est c'est très intéressant ce qu'il dit genre joueur yooyu noonu une une fois que ñu nekk ci terrain bi rek dañuy créer benn affaire bu doy waar parce que ñëpp dañ leen di bàyyi xel. bàyyi beneen espace yeneen joueurs ñëw exploité ko boo xoolee Sadio Mané certes il n'a pas trop brillé dans cette rencontre contre la Gambie mais il a été passeur décisif si mm. biwu Pape bi donc euh, moom bu nekkee si bi rek il il peut faire peur aux adversaires. Et puis pour moi, le football, même si c'est de l'intelligence en mouvement, mais c'est d'abord mental et psychologique. Donc si psychologiquement les adversaires euh, ont en tête que Sadio Mané mi ngi fi ñoom ñëpp dañuy bàyyi xel Sadio Mané libérer espace pour Iliman Ndiaye wala pour Ismaïla Sarr et que là ça peut ça peut faire pour pour pour eux. damay des yow rek ci ñu kon Sénégal lañ doon wax ñu continuer Sénégal rek nga gis per nan nga gisee performance Sénégal bi contre d' abord classement bi d' abord gars yi ñu room kaas ci classement naan Aliou dafa yab nit ñi ñu ñëw pare ñu wane ñi xamante ne bon di def seen mëneen rek ah. Ah, contre la Gambie euh, Aliou Cissé a pris rendez-vous avec la gloire c'est-à-dire quand le geste quand le moment juste rencontre le, gest geste exact donc euh, il a fait euh, ce qu'il fallait faire c'est classement bu normal pour moi même si parfois dama koy critiquer parfois je sceptique par rapport à ses choix mais pour l'instant je, je n'ai que des mots pour le féliciter hein membre de bi vraiment ils ont fait un, un très bon match une très belle prestation du début à la fin donc euh, loolu la ñuy xaar ci équipe yu mag du yow yaay favori rek sur le papier mais boo duggee ci aussi nga gérer say temps fort ak say temps faible gis nañu Sénégal c'est une équipe qui gère qui euh, à bien ses temps faibles et puis c'est c'est le plus important temps fort aussi, on l'a géré, on a inscrit trois buts dans une rencontre. Donc, euh, di féliciter Aliou encore une fois ak jeu donc euh, yow dama li may kii nii rek mooy nan nga gisee performance euh, Lamine Camara ak ki nga xamante ne moom mooy Abdou Diallo mu ne football militaire. non xam nga li may wax chaque jour Aliou Cissé c'est un grand homme xam na la mooy CAN dund na ko dund d'accord Sénégal moom tollee ci CAN wala ci ci mondial on dix huit millions de. d'entraîneurs fu nekk da ñëw noo classement bi baax na bi baaxul fii fii fii nga war a teg te kii yor ay jouram xam na placement bu ne certes parfois dina am erreur yoo xam ne au bi da ne lii erreur bi mais après bu match bi dawee da ngay gis loo xam ne da nga xam ne lii moo waroon am alors bokk prestation Lamine Camara moom moo sur bokk bu mën ne surprendre nañu parce que boobu dafa am mu jógee ñëw kon bu intégré équipe nationale du Sénégal fekk fii ku mel ni Sadio Mané fekk fii ñoom Nampalys fekk fii ñoom ñoom Kanda keneen ak booy bi day bëgg wan bopp hmm. parce que déjà équipe dafa dafa nekkoon ak ay moromam jël ko tànn ñoo kenn alors moom pour man euh, day jouer pour pour le Sénégal parce que day montré leen que Sénégal ñun tey benn construction la ñu nekk ñi fi nekk ñoom Sadio Mané Diaté euh, après dañuy dem am na équipe boo war a jiit boo war a ñëw booy tey ñoom ñoo war a ñoom ñooy yor Sénégal booy bi ñoom ñoo koy yor kon il dafa dafa jot pour l'instant ñu won leen yoon bi maanaam ñu teel na responsabilité ñu xam ne ñoom nañu kàddu te dañ ko dañ ko bëgg ñamaat ñamaat ko te loolu pour mu am il faut tey ñi fi ne avancé gis na ci ñëw te ñooñu il faut ñu boole ci biir ñu teel a maîtriser lan mooy kàddu et vraiment kontaan nañu si si prestation bi ah man mun naa ne euh, gisuma ci dara loo xam ne ne lu jar a lu jar a kii la xool deuxième tournée bi muy demee incha allah yi ñu nag Cameroun Euh, expérience la Cameroun équipe bu mag la mais dañuy xool ni ko Sénégal di ko di ko gérer rek waaw mën nañu xam lan mooy évolution CAN bi incha allah. junior lay wax ci performance Lamine Camara ki am Abdou Diallo. waaw ak Abdou Diallo aussi ah su ñu terrain bon mu njëkkee si Lamine Camara moom mi nga xamante ne si biir qualité élu homme du match en inscrivant deux buts pour son premier match de Coupe d'Afrique des pas évident. Pour moi, vous savez, dans un déménagement, il y a ceux qui portent le piano et ceux qui le jouent. Lamine Camara, il est en train de jouer avec euh, cette équipe nationale du Sénégal. Là, il prend du plaisir à jouer, à nous faire vraiment euh, plaisir. Si talent, si savoir-faire, son positionnement sur le terrain, euh, sa capacité à se projeter vers l'avant. C'est un milieu de terrain, mais qui marque des c'est aussi intéressant pour un milieu terrain. donc euh, actuellement comme ni ko ndax Ahmadou waxee il est dans sa dans la continuité de ce qu'il a su si génération bi yëpp yi nga xam ne jóge na fa jël Coupe d'Afrique U20 et ak booy ñëw ba fii et puis c'est pas évident dans une équipe où vous avez Idrissa Gana Gueye Cheikhou Kouyaté Nampalys Mendy des cadors de très bons joueurs qui évoluent dans les clubs européens nga ñëw jël place bi nekk si milieu terrain bi en ayant 20 ans 21 ans Vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Nikoko Maïnak aujourd'hui, ce n'est pas le secret, c'est juste le travail, c'est la discipline, c'est la détermination, mais aussi la maestria, c'est-à-dire le savoir-faire. Donc, il ne, il personne. Par rapport à Abib aussi, euh, pour moi aussi, il a un bon match. Hein. Vraiment, fin que l'on jouait, peut-être Amna euh, mais il a fait un bon match globalement. Il a montré toute sa grinta sur le terrain. et espérons que deuxième match possibilité jouer ñenn ñu ngi naan Nampalys mooy ñëwaat mais de toute façon ak ku ñu mën a teg na nga ñëw indi envie de gagner parce que effectivement on a un gros adversaire qui s'appelle le Cameroun rappelez-vous que Sénégal gagnewul Cameroun depuis plus de 33 ans si Coupe d'Afrique euh, si genre compétition officielle bi muy Coupe d'Afrique des Nations last bi ñu joué récemment en octobre c'était en amical euh, à Bollard Stade Lens Sénégal match bu beneen bi ñu joué woon c'était en CAN quart de finale série Cameroun toogloo na je rappelle des larmes de Sadio donc euh, actuellement pour man revanche bi si ñun la war a jóge on doit tout faire pour les battre c'est des lions qui sont blessés actuellement ils sont mal entrés dans cette compétition qui la Coupe d'Afrique des Nations essayons maintenant ñun de hausser le niveau de les battre et de continuer notre chemin pour aller le plus loin possible. mu ne ko boobu surprise bu rëy bi nawet bii door ko 1 bi à 0. waaw c'est une bonne équipe ñëpp xam nañ ko équipe maghrébine euh, bi ñëw dóor ko à la dernière minute euh, voilà surprise la boo xamante ni kenn xaaru ko woon peut si CAN bi. mais bon c'est le football encore une fois Tunisie c'est une bonne équipe encore une fois ay joueurs yu mag ñu ngi fa sat ni waa Wabi Kazri gisuma ko si euh, si bi xaw ma dafa gaañoon xaw ma mais bon c'est une équipe qui a son également pour le reste de la compétition. Amadou Maroc ak kii nii Maroc ak Tanzanie Maroc door ko 3 bi à 0 na nga gisee prestation marocain yi. waaw xam nga dafa am rek. y a de ces équipes tey boo nekkee si si si ci papier bi la mais boo dugg ci terrain da nga koy waxee. boo jógee équipe dañ koy dóor comme tey di Guinée équatoriale def Guinée koy jàpp escanté ko escanté yu métti on passe à autre chose Sénégal li mu def Gambie noonu la léegi nag li ci des xam ne boo dajee ak équipe yu mag yi foofu football moo fay génn après là on pourra juger mais équipe yu ndaw yi boo leen dajee ak ñoom li Maroc def Tanzanie da ngay dajee ak ñoom da nga koy dóor dóor est bu rëy Égypte Égypte moo def erreur Ghana aussi daje nañu équipe boo xam ne bokk entre jéem bu ndaw finalement génn ñu ci kenn du xeeb équipe mais vraiment boo ko jekkoo moom nga xam ne kii yaa ko mën da koy dóor dóor yu métti te Maroc aussi loolu loolu la def comme Sénégal defee Gambie. tey jii est-ce que am nga yaakaar ne Maroc bu ñu continuer nii su fekkee ko ne mën na jël kan bi. bu ko jëlul sax mun na sori bu ko jëlul mën na dem ba final actuellement mënoo génne trois wala quatre favoris yi Coupe d'Afrique bi te te cité au vraiment c'est une très grande équipe actuellement li ñu wane daal démb bu ñu ko continuer euh, voilà dina dina métti si équipe adverse yi c'est possible. c'est c'est c'est une possibilité ah qui sait kenn xamul euh, Namibie Tanzanie sax final mën na nekk <laughs> football la. football la certes mais bon Maroc ak li mu wanee gum actuellement mën na dem final bu fekkee nii la continuer Sénégal aussi pareil Côte d'Ivoire aussi pareil voilà am na ay tour yoo xam ne boo leen déggee nga xool seen prestation di nga xam ne ñii mën nañu am nañ possibilité sori mais c'est la Coupe d'Afrique des Nations c'est la Coupe d'Afrique des surprises aussi. waaw di la gërëm di la sant merci beaucoup di gërëm également Amid Ahmadou pour man euh, show rek la mën mais nantera <laughs> il sait il connaît le football macha allah di ko di ko jaajëfal aussi di jaajëfal yi fi nekkoon ñëpp caméraman yi Nino Alain AG Libaas ak ñëpp donc di kontaan ci képp kuy seetaan Lou'Bess TV di gërëm euh, sama gars yi ñuy seetaan tout le temps di ñu focus di leen wax euh, ñu ñaanal gars yi ñu dem jëliwaat coupe bi incha allah. incha allah. waaw sant yàlla rek comme ni ko Junior waxee xamuñu si seen euh, nee naa ne ñu ñëpp ay amateur ah, la ah loola ci neex koo wax moom mu ngi am na lu muy lu muy lu muy lu ci football on est 18 millions d' habitants 18 millions Euh, euh, bon kan bi la et tout nañ ko dund ci jàmm ak salaam hmm, te liñ jot a ñam mooy kan final final euh, champion yàlla nañ ko yàlla ko jëlaat ci ci at bi et tout ça yàlla suñu borom defal ñu jàmm ak salaam may nuyu aussi waa association basket plus bu ñu fàtte ne sport basket aussi dafa am nekk sport bu am solo ci ci ci tey yaa xam ne Levi's TV aussi dinañ ci taxaw ma ci nuyu euh, Waly Waly John bu baax a baax a baax ñëpp ñu bokk ci association basket bu ba bu bëri te lu bees yi dina fa dem dina dem seeti leen dem waxtaan aussi ci basketu te xam boobu yéen ñaar laa koy dénk incha allah ñëpp di wax rek euh, bonne chance au Lions du Sénégal pour demain incha allah rabi. waaw comme ni ñu gisee ah li moo nekkoon euh, seen troisième numéro seen troisième numéro Actu Kan ñi ma àndaloon ak ki moom mooy junior ak ki moom mooy Amadou dégg ngeen junior lu ma wax rek daa tooñ Amadou nee na yàlla baax na kon donc ñu ngi leen jox incha allah dig daje rek euh, demain wala après demain rek incha allah waxtaanee li nga xamante moom mooy match Sénégal ak Cameroun bi